njaboot gi ndikiti buñ la jiitale duñu la def kon daal mënuma la def borom kër bu yeewu xalaat ni waree fu njaboot gi ko yëkkati dëgg ma mënuma la def ma kenn du la def xam naa ni soppeeku jamono bi ñu ne ci tambali ritula dafe na sila di ko la des na du xam naa ni man xam naa ni ndikiti njaboot gi njaboot ndikiti buñ la jitale duñu la da kon ma mënuma la da borom kër bu yeewu xalaat ni wareefu njaboot gi ko yëkkati dëgg ma mënuma la da ma kenn du la da xam naa ni soppeeku jamono bi ñu ne di tambadiri këla jafe na si laa di ko jaay laa desatu ko du mën a laax jaay ndax dafa mu ci toog te yaa tuuti sama waaji yee bala nga laax day bala nga laax day bala nga laax day kar rek ne kon comme ubbi na ay buntu itam euh, may nañu itam ñu am euh, euh, Sénégal Airlines. Sa parole, c'est Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, j'ai encore quelques dix minutes à passer avec vous, justement pour partager avec vous le meilleur de Oumar Pène, le lead vocal du Super Diamono sur cette antenne de la télévision Futur Média. Nous préparons activement les 40 ans de musique de Oumar Pène et du Super Diamono. Ce sera ce samedi à Les Almadies, 40 ans de musique, 40 ans de succès, 40 ans d'humanité, 40 ans de partage que nous allons célébrer ce samedi incha allah foofu ci hôtel des Almadies Youssou Ndour daal di confirmer ne day ñëw partager ak Omar Pène li nga xam ni moom moo di scène bi mu di nouvelle bu ñu neex a neex a neex. Youssou Ndour ne day ñëw partager avec Oumar Pène la scène Thione Balago Seck confirmé ne day ñëw partager avec Oumar Pène la scène ki nga xam ne moom moo di Baba Maal confirmé ne day ñëw partager avec Oumar Pène la scène kii di Ismaïla Lo confirmé ne day ñëw partager euh, la scène avec ki nga xam ne mbokk yi moom moo di euh, Oumar Pène alors mesdames et messieurs très chers téléspectateurs ce sera avec Sénégal Airlines Wari Jumbo AG Trip et le groupe Futur Média ensemble qui se sont liés d'amitié justement pour servir Oumar Pène, l'accompagner puis l'honorer. Ce sera, mesdames, messieurs, ce samedi à l'hôtel des Almadies. Si vous n'avez pas encore réservé, c'est maintenant. Alors lan moo leen marqué ci Oumar Pène vidéo

foofa ca ban jaaxle ba jaar ca balafon jaar rue Makodou Ndiaye euh, humanité bi nga xam ne moom la àndal bége bi nga xam ne moom la àndal xaritoog Sénégal yëpp bi nga xam ne moom la àndal tax na ñu war ko rendre hommage samedi bii di ñëw incha allah ca hôtel des Almadies alors mu war a ànd ak ñi nga xam ne jaaroon nañu super jamono yëpp ñooñu ñëpp dellu siwaat ñu war a ànd ndoog moom ki nga xam ni moom moo di Oumar Pène ànd ndoog Sénégal Airlines Wari transfert d'argent Jumbo AGETIP et le groupe Futur Média pour honorer Oumar Pène un téléspectateur en ligne allô allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu di la ziar. noo tudd fan ngay woote. waaw. waaw dëgg la mbaa ngi ci jàmm. alors euh, lan moo la marqué ci Oumar Pène euh, sur ces quarante ans de musique de Oumar Pène et du Super Diamono. gentil parce que je peux te dire c'est la première fois may woote télévision. effectivement. Oumar Pène. j'ai grandi avec la musique du Modou. dëgg la. Diallo Jéeri. dëgg la bëgg sama yaay wujju yaay. ma Omar il a chanté toutes les couches sociales de la société du sénégalaise. Mhm. pour ne pas dire africaine. Mhm. ñëpp ko yore njukkal. Mhm. je me rappelle en 1988. Mm -hmm. le fameux album de Cheikh Mhm. qui est sorti. dëgg la. que mu marqué tout parce que coïncidence ak année blanche bi. wa. ñëpp kenn jàngul di déglu musique su Omar Pène du matin au soir. dëgg vraiment grand Omar Baye Pène. Mhm. yàlla na yàlla may fan nu gudd. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin vraiment c'est un quelqu'un qui a marqué tous les Sénégalais. Mhm, Hmm. merci beaucoup en tout cas ñi ngi engagé wu ci wetam war ko rendre hommage ñun ñëpp ñu jug taxaw may woo jeunesse bi yëpp woo képp koo xam ni euh, mës nga déglu musique Omar Pène ñun ñëpp ñu jug incha allah ñëw rendre ko hommage samedi mu def 40 ans sur la scène musicale sénégalaise vous imaginez 40 ans de créativité 40 euh, ans en studio 40 ans sur scène 40 ans à réfléchir à composer des musiques à chanter ans yoo Oumar Pène def sur la scène en tout cas moi je suis engagé à vos côtés pour rendre hommage à ce grand monsieur de la musique sénégalaise à ce grand monsieur de la musique africaine Oumar Pène un hommage mérité de son vivant ce samedi de l'autre côté à l'hôtel des Almadies alors euh, vieux s'il vous plaît Si vous voulez afficher les numéros de réservation s'il vous plaît alors euh, sur cette antenne de la télévision Futur Média ñëpp mën ci woote mën a réserver ñëw euh, fekkee si ko mu war a you Youssou Ndour confirmé ne day ñëw partagé ndo ak moom scène bi daal di ñëw def li nga xam ne moom moo di ëllëg si biir ëllëg si biir jouer indépendance jouer ëllëg si biir jouer wujju yaay ak ki nga xam ne moom moo di euh, Oumar Pène pour rendre ko hommage euh, Thione Balago Seck war a jouer li nga xam ne moom moo di Biita Ban alors Ismaïla Lo am tamit loo xam ne moom lañ ko jox salaamaaleykum ku baax ñu ngi lay nuyu di la ziar. mbay tey. noo tudd fan ngay woote maa ngi dëgg la yaa ngi ci jàmm alors lan moo la marqué ci Oumar Pène s'il vous plaît. wala mbay naa dama ko dama ko sopp quoi. ko sopp da nga sopp Oumar Pène nag lan moo tax nga sopp ko lan moo la marqué ci moom véritablement. fekk moom di jaay wax rek wéy ka dëgg la. way li mu fekk li muy woy dafa am importance boo ko dag xam nga moom du woy woy caxa caxa yooyu ay caxagun xam nga wala nag moom am woy gul loolu quoi du woy caxaguna non wéy wéy moom du wéyam li ko fontoo quoi wéy xam nga yenn yi quoi man du fontoo ma kenn nag wéy moom wax dëgg yàlla man daf ma daf ma neex magnifique waaw ah, <laughs> wuy ma waaw xam nga jamono ju ne ak la cay xew waaw non c'est que ma nga dëgg la waa dëgg ma waaw mais grand bi est-ce que est-ce que wayul woon biita band biita band na fecca <laughs> ci temps yooyu. ah. ci temps yooyu amoon na biita ban na ah? eh, amoon na. <laughs> ma. waaw mën nga reetaanu Omar Pène bi ah. reetaan bi. waaw. ah démb dinaa ko ree ree <laughs> merci beaucoup ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant Sénégal Airlines ñooy àndandoo ak Oumar Pène Wari transfert d'argent àndandoo ak Oumar Pène Jumbo àndandoo ak Oumar Pène AGETIP la radio RFM la télévision TFM pour vous faire vivre l'événement et le journal L'Observateur pour les 40 ans de musique de Oumar Pène et du Super Diamono d'ailleurs il faut que ma wutal ko interview pour L'Observateur nga xam ni dina wax waa L'Observateur loo xam ne musu ko wax kenn incha allah ci 40 ans de musique ñu jël beneen téléspectateur en ligne salaamaaleykum ku baax na nga def. salaam ici au Congo Brazza. au Congo Brazzaville vous vous appelez comment. au Congo Brazzaville merci beaucoup vous vous appelez comment. Euh, Abou Sow. Abou Sow. Ouais. Alors Abou, qu'est-ce qui vous a marqué chez Oumar Pène, le lead vocal du Super Diamono? Euh, D'accord. J'ai écouté le, leur musique très bon. Merci beaucoup, Abou. Bien des choses à nos amis de Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, c'était quelques du passé avec vous avec Jumbo Wari AGETIP Sénégal Airlines et le groupe Futur Média la radio RFM la télé TFM et le journal L'Observateur justement pour euh, magnifier l'homme Oumar Pène l'artiste le grand panafricaniste le grand euh, des grands un Africain qui a toujours chanté lépp loo xam ne da di musique euh, maanaam jëmee ko dans la paix non à la violence non à la guerre agresseur alors euh, ñu jël benn téléspectateur soog a tëj salaamaaleykum. ku baax nuyu nañ la ak ziar la fooy wote Bakel. noo tudd. Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye Mbaye vous allez bien. waaw ah, ça va bien. Mbaye lan moo la marqué ci Oumar Pène ci 40 ans de musique am. Oumar Pène de lépp mu marqué ci moom. ndeysaan. lépp lépp mu marqué ci li mooy. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw. distance bi distance bi moo may daane. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. distance waaw. ma wax la man lan moo ma gën a marqué. waaw. ah. waaw ma ne. du boobu morceau ban la. waaw baas bi baas bi laa génnee foofu xam nga loola la. te daal ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek. amiin Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. Ça y est, c'est terminé. Alors, d'autres animateurs vont se relayer ici même demain, Inch'Allah, pour accompagner Oumar Pène lors de ses 40 ans de musique et le Super Diamono. Alors, Oumar Pène, chapeau à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous portons beaucoup d'affection. Monsieur Youssou euh, a confirmé venir partager avec lui la scène, pour partager avec lui Euh, loolu nga xam ni moom moo di morceau boobu nga xam ni moom la ñuy wax indépendance partagé ak moom morceau boobu nga xam ni moom moo di ëllëg si biir alors Oumar Pène tamit euh, nee na moom it dina way daxaar ga ca yoonu mbaadaan Euh, nee na tamit euh, am na beneen bu ma dee Thione Balago Seck am na nu muy def Ismaïla Lo am na nu muy def Baba Maal am na muy def ce sera une grande soirée de gala ce samedi à l'hôtel des Almadies faites vos réservations avec Sénégal Airlines Jumbo euh, Wari AGETIP et le groupe Futur Média la radio RFM le journal L'Observateur et la télévision TFM pour vous faire vivre l'événement salut à toutes et à tous le ce sera dans quelques instants l'incontournable ce sera En attendant, avec Khalifa Diakhaté, voici Youssou Ndour. Salut à toutes et à tous. Ciao et à très bientôt. Senegal Airlines. Sa parole des arts. kar rek ne kenn comme ubbi ay buntu itam euh, may nañu itam ñu am euh,